wa akrimna bi nuuril fahmi waftax calayna bi maxrifati lcilmi wa xassin axlaaqana bilxilmi wa saxil lana abwaaba fadlika wansur calayna qadaa'ina raxmatika yaa arxama arraximin yaa rabbal caalamiin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 di bég lool ci ni ngeen koy toppee di bég lool ci ñaan yi ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu boole ñu nangul di siyaare jàngkati alxuraan yi di siyaare jàngalekati alxuraan yi di ndokkeelaat jullit yépp ci weer wi nga xam ne moom lañ nekk di weeru rabbil awal di weeru yonent bi alayhi salaatu wasalaam di weer wi nga xam ne ci la feeñoon te moom la olof di wax weeru gàmm yal na ñu ko yàlla fayal yal na yàlla xiir ñu ci ñu man koo topp yal na yàlla boole ñu ci ñi nga xam ne dañuy bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba noppi di dund mbëggeel googu suñu diggante ak moom yàlla mën na ko yal nañu ko boole defal mbokk yi bàyyi xel baax ñoo ngi leen di béggee bu baax di leen siyaare bu baax a baax te di leen eh, jaajëfal di jël nuyoo yi di ci jiital suñu jigéen docteur Ana ja ak mboolem soxna yi nga xam ne ñooy bàyyi xel jotaay bi ñoom maam ki ne caam mi ko tudde woon mes mos baax euh, suñu jigéen soxna daba jaane ak mboolem soppee almisbaax yi nga xam ne ñu ngi koy def seen bind di ko wétli ko suñu fajaru àjjuma yi dañ ci doon waxtaane lu jëm ci wàllu fiq maanaam joxoñoon ci ni ñuy jaamoo yàlla maanaam lu waa ci wàllu julli ak yi nga xam ne moo ci aju li nga xamante ne àjjuma day bis bu jagoo ay yëf yu bari moo tax ñu bokk ko waajal ñun ñëpp ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na mooy bis bi gën ci bis yi mooy bis yi gën mooy bis bi gën ci bis yi maanaam bis yëpp dañoo am sang sangu bis yi mooy bisu aljuma sangu weer yi mooy weeru koor sangub guddi yi mooy guddi laylatul xadar sangub jumaa yi mooy baytilaayil xaraam noonu la yàlla moo ñu àdduna sangum nit ñi moo yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nii la suñ boroom séddalee àddunaam noppi na bu ko defee bis bi nag màng ko ci ay xéewal màng ko ci ak njub màng ko ci jaamu yàlla màng ko ci teral bis bi loolu lañ ci taamu moo tax sax mu am waxtu woo xam ne jullit yi dañuy daje ci benn barab mbooloo imaam taxaw wax ak ñun ba noppi ñu julli ñaari rakka mbokk yi bisu tey bii di bisu àjjuma yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na waxtoo ngi ci woo xam ne lu ci waay ñaan mu nangu waxtoo ngi ci woo xam ne waxtu nangu ñaan la lu ci waay ñaan mu nangu boroom xam-xam ya daw ñenn ñi ne waxtu wow day mooy waxtu wi imaam di tooge ci kaw minbar bi di xutba ñenn ñi ne mooy waxtu wi jant bi di sox te soogut ñenn ñi ne mooy ginnaaw saan noonu lañ ci séddoo ala kulaalin bi nga ko xamee noonu dangay ngay yëg ne kon bis bi bisu jaamu yàlla la nga màngu ko ci aw yiw sa kemtalaayal kàttan fexe ba sori lépp loo xam ne ak ndëngte la tey nag ñu waroon a waxtaanee lu jëm ci wàllu julli ginnaaw bi ñu waxtaanee woon farata yi ak sunna yi ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu dimbali ñu ba niñ ko bëgg yaatale ñu yaatale ko noonu ndax waajal nañ ci waxtaan woo xam ne daa war jëm ci faratay julli ñu jàngale ko ci benn par benn woo xam ne day jëm ci sunnay julli ñu jàngale ko benn par benn bu ñu noppee def ko ci ay kele USB ak jumtukaay yoo xam ne ñi ko soxla danañ ci mën a jot te du ànd ak jafe ndax bëgguñu mu doon lu ñuy commercialiser waaye dañoo bëgg rek mu doon loo xam ne ñi mu yitteel te ñu mën cee jàng danañ ko mën a def ci seen oto mën cee jàng mën cee góorlu moo tax incha allahu taala bu ñu yàlla defalee xéewal ak mbokk yi nga xamante ne fas nañ ci yéenee jàpp daañu ko waajal euh, tasaare ko incha allah ñoo ngi ciy sàkku seen ñaan bu baax a baax tey nag ñu waroon waxtaane lu jëm ci julli la wala julli ñuy wax julli coobarewu yi maanaam julli dafa am ay xaaj dafa am loo xam ne julli farata la mooy ñaari ràkkay suba yi ngay julli ci kanam tuuti ñeenti ràkkay tisbaar yi ñeenti rakk yi takkusaan ñetti rakk yi timis ñeenti rakk yi gée yii farata la dafa am nag yeneen yoo xam ne naafila la la maanaam nekkut lu war rek laa bëgg a wax nekkul loo xam ne farata la ñu koy wax tatawu tatawu buñ ko waxee mooy gépp jaamu yàlla goo xam ne laysa bi waajiba bu boobaa dañ koy wax ne goo xam ne li nit ki da koy coobarewul boppam lu am solo la moo tax dama lay wax ngëneel yim am ak ni nga xam ne noonu la ko lislaam yoonale julli koo xam ne nit ki la koo def ngir naafi la dafa bokk ci yi nit ki di gën a jege boroomam subhaanahu wa taala dafa bokk ci yi tax nit ki jege boroomam subhaanahu wa taala naafi la da cee bokk naafi la da cee bokk yonent bi sallallahu alayhi wa ci xadis boo xam ne abi hurayrata moo ko nettali nee na suñ borom nee na ku bañ sama walliyu déclaré naa la guerre yàlla nee na ku bañ sama walliyu ma déclaré la guerre nitu yàlla kenn du ko bañ bul ko noonoo bul ko bañ bul ko weddi bul ko sikkal moom daal gëm moom xam da koo gën a yaatu waaye nag am nga liberté wu gëm am nga liberté weddi li nga sañut kay mooy ŋàññ ak noonoo bul noono wala tuaadu man raaytum faahu yuxriju laa ilaha illa allaahu na ku gimiñ ngay wax laa ilaha illallah bul ko bañati wa ahbibil muumini lil imaani wal tubqidil kaafiri lil kufraani ab jullit moom na ko bëgg rek ndax doon gim doonub jullit yonent bi nee na man aada lii waliyan faqad adantuhu bil xarbi ku bañ sama walliyu ku bañ nit ku baax ku bañ kuy góor góorgóorlu ci diine ji ndax walliyu mooy ñi ragal yàlla te wéetal ko te sellal ko te summeeku ci àddunaa ki lënt lëntam nee na déclaré naa la geer ku yàlla déclaré geer na xaw ma foo jëm yonent bi alayhi salaatu wasalaam tekke ne suñ borom nee na li gën ci li ma sama jaam bi di defal mooy li ma farataal ci moom maanaam li gën ci li ngay defal yàlla mooy li la yàlla sant bu julli juróom jotee waxtu wi jot loo defalati yàlla lu jullil ko safu ko maanaam amul loo fii def loo xam ne moo gën a foor julli bu julli farata xasee ba teew nee na nag nit ki bu noppee ci li ma farataal ci moom du dañ sama jaam bi di ma jege jegelu ci naafile yi ba ma bëgg ko rek foofu foofu rek doy naa yem nga xam ne góor góorlu gi ngay góorgóorlu ci julli coobarewu naafile yi ak yi nga xam ne moo ci aju dalay indil yàlla bëgg la xatta uhibbahu allahu akbar boo bëggee yàlla bëgg la kon dangay bari looy naafila dangay bari looy naafila loolu rek doo na ci ngëneel lii suma ci yamee borom bi subhaanahu wa yoonal ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam boole ko ci mu nekk yërmande joo xam ne yàlla da koo defal jaam bi ndax mu ci man di yokkoo ak ngëm yàlla ay jaam di ci yokkoo waaye mu ciy gën a mottali ay farataam maanaam bi nga julee tisbaar ba noppi naafila waat yeneen ñaari rakka xëy na bu doon am na ay manqué manqué ca tisbaar ja naafile yi ñëw mottali ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na li ñu njëkk xool ci jaam bi ëllëg yowmal xiyaam mooy julleem yi waaw julli moom la ñu njëkk xool bu julli yi matee baax na su fekkee xool nañ julli farata yi mu am ay manki manki ñu ne xool leen naafile yi ndax am na yu mat ñu jël ko mottulee ko ko allahu akbar moom naafila yi may waxtaane dafa am ñaari xaaj yoo xam ne dafa am waxtu yuñ ko jagleel mu am naafila muy naafila yoo xam ne dafa am tur dafa am tur am waxtu yuñ ko jagleel am yeneen yoo xam ne ay naafila la yoo xam ne day ànd ak farata yi ak yoo xam ne coobarewu rek la waxtu wee dagana julli rek nga julli lu mel ni julli witr lu mel ni julli e, yoor yoor lu mel ne julli bu ñu muuree jant bi wala yi nga xam ne moo ci aju yooyu dafa am ay joxoñ yoo xam ne moom la am am yeneen yoo xam ne nag moom dañ koo bàyyi noonu rek mu nekk la naafila mutlaqan nga xam ne amut ab tënk ci nit ki dagan na ci yow daal guddi gi bu la neexee ngay julli ñaari ràkk yoo julli sëlmal ñaari ràkk yoo julli sëlmal ñaari ràkk yoo julli sëlmal saa yoo sonnee def safaak witar daal di bàyyi moo tax lim yi nga xam ne moo ci ñëw bari lool waaye am na ci yoo xam ne danaa la ko ci indil jël ci xadis bi nga xam ne moom lañuy ñuy wax xadis omar bi ba mu waxoon ne mokkale naa ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñaari ràkka lu jiitu tisbaar ak ñaari ràkka ginnaaw tisbaar maanaam bala ngaa julli tisbaar nga julli ñaari rakka boo jullee tisbaar ba noppi nga julliwaat yeneen ñaari rakka nee na ak ñaari rakka bala ngaa julli eh, ginnaaw julli timis ñaari rakka ak ñaari rakk ginnaaw julli gee ak ñaari rakk lu jiitu julli suba nee yii mokkale naa ko ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam eh, nga xam ne fukki fukki rakka fukki julli wala fukki rakk ak ñaar am na ci xadis boo xam ne moom lay ñëwee yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ma min abdin muslimin yusalli lillahi taala fi kulli yawmin sintay achara rakka illa bana allahu lahu baytan aw ila buniya lahu baytan fi janna yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ku naafilaal yàlla ci bis bi fukki rakka ak ñaar suñ boroom subhaanahu wa taala tabaxal la ci aljanna ñeenti rakk lu jiitu tisbaar ñaari rakk ginnaaw tisbaar ñaari rakk ginnaaw timis ñaari rakk ginnaaw gee wala li jiitu gee ak gee ñaari rakk la salaatil fajri mooy li ma waxoon léegi lu jiitu ngay julli suba nga naafila ba noppi door a julli suba mën naa doon ñaari rakkay fajar yi mën naa doon yeneen loolu ci julli naafila yi nga xam ne aw yiwu bari da cee nekk ci la bokk mu am yeneen yoo xam ne ci naafile yi la bokk waaye dañ koo feddli moom la ñuy wax na mu akkada dañ koo feddli na nga ci góorgóorlu sa kéemtalaayal kàttan bokk na ci yooyu ñaari rakkay fajar ñaari rakkay fajar yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na rakkaatal fajri xayrun min ad-dunya wa ma fiha ñaari rakkay fajar yi yiw wi ci nekk moo gën àdduna ak li ci biiram maanaam ci waxtu wi ñu nekk dafa am ñaari julli yu ci am ñaari ràkk yooyu njëkk julli yoo xam ne du farata naafila la moom laay wax nii loolooy jullik fajar yeneen ñaari ci des mooy farata ji loolu mooy jullik suba na nga ko dafa am yoo xam ne mooy jullik fajar am yoo xam ne mooy jullik suba ñaari rakkay fajar yi du farata sunna la waaye sunna bu dëgër la moo tax ma dugal ko fi may waxtaane nii ci julli yi nga xam ne julli coobarewu yi la yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na moo gën àdduna ak li ci biiram moo gën àdduna ak li ci biiram wali xawli aïcha radiallahu anha an haatayni rakaatayni walam yakun yadaahuma abadan yonent bi alayhi salaatu wasalaam mësu koo bàyyi ñam yaroon jàngal leen mësuñu koo sàggane loolu mooy julli fajar danaa ci mas a ñëw beral ko waxtaanu boppam insha allah mu amaat geneen julli naafila goo xamante ne witr lañ koy wax witr witr dafa bari lool ay ngëneel waaye moom it bokk ci yi nga xam ne dañ koo wutal waxtu waaye du farata nag sunna la moom it sunna bu dëgër la sunna bu dëgër la sunna la bu ñu xemmeem lu yonent bi alayhi salaatu wasalaam daan ci soññee doon wax ne inna allaha witrun yuhibbul witar suñ borom de ku tóol la waaye ku bëgg ñu tóolal ko la waaw ku bëgg ñu tóolal ko la yàlla dafa tóol kenn képp la benn waaye ku bëgguñu ñu tóolal ko la moo tax julli gi na nga ko jeexale benn ràkk boobu ngay julli bala ngaa tëdd yonent bi alayhi salaatu wasalaam daan na wax ne yaa ahlal quraan utiru fa inna allaha witrun yéen ñi nga xam ne yéene waa alquraan tóolal leen ndax suñ borom day ku tóol la waaye bëgg na lool it ñi nga xamante ne dañuy tóolal ñi nga xam ne dañuy witr bëgg na leen lool witr aw waxtaam wala aw waxtoom mooy diggante julli gee ba ba ñuy julli fajar diggante julli gee ba ba ba ñuy julli fajar loolu mooy waxtu witr boo jullee gee bu la neexee ci saasi nga julli ñaari ràkk muy safa nga tekke benn ràkk muy witr bu la neexee nga julli gee tëdd nelaw wala nga def say naafi la ba sonn def safa ak witr bu dee dangaa bëgg julli ci guddi gi mën ngaa bàyyi ba yeewu ci guddi gi boo julee sa ñaari ràkk sëlmal julli ñaari ràkk sëlmal ba sonn def sa witr waaye nanga fexe daal ba bala ñoo julli fajar na nga julli witr na nga moo tax bu jant bi fenkee wala fajar gi xaar dootoo ko def waaye bëgg nañ nga góorlu nag ba bañ a sàggane witr waaye mu bokk ci yi nga xamante nii da koy def boole ko ci jaamu yàlla yi moom itam ci sunna yi la bokk te am na solo lool yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na man xaafa an laa yaquuma min axiri leyli fal yuutir awalahu koo xam ne dafa ragal ne dafa ragal ne du jóg ci biir guddi gi bu tëddee rek mën naa ne raw te day biddanti du yeewu di naafila guddi bu jullee gee ba noppi rek na julli safa ak witr koo xam ne dafa am yéene xemmeem wa man tamia an yaquuma axira leyli fal yuutir axira leyli koo xam ne dafa bëgg bàyyi ba ci guddi gi mu yeewu naafila def ay yëfam door a tëddaat wala door a def li muy def na bàyyi ba ca diggu guddi ga ca mujj ga mu door a def witram fa inna salaata axira leyli mashuudatun wa dalika al fadl julli guddi guddi day seede nit ki ëllëg yowmal xiyaam yiwu baree ci nekk yiwu baree ci nekk te loolu nag mooy baax baax bi te loolu mooy baax baax bi allahu akbar julli guddi baax na lool bàyyi ba ñëpp tëdd di nelaw nga ne ñoo ket am na sax ñoo xam ne dañ ko wutal ay yërey boppam waaw wut sa jàllaa bi boo xam ne julli guddi nga koy doye waajal ko sol ko toroxlul sa borom xeeñoo xeet gu neex lal jublu penku jullil sa borom ay rakka ba sonn sëlmal ñaan ko say soxla jabbutu dem ci sa yitte te boo xëyee bañ koo nettali waaw bul ko nettali de bu fi nekk bi de xam naa maa ngi dégg sax nga yëngatu jamono jooju bi may julli maa ngi dégg ngay yëngatu nga xam ne danga wax a wax ba dugal ci julli gi day yàqu de <laughs> nekk fi di sonn di góor góorgóorlu ci jaamu yàlla te loo ràbbu ko ci wax ko ci saw làmmiñ dafa bokk ci li gën a mën a yàq ay jëf bul fi nekk di ko nettali bu fi nekk di ko nettali bul ci bul ci yàqit àq ñi nga dëkkal bul ci yàq àq ñi nga dëkkal bu dee jigéen nga war a dend ak sa boroom kër war a waxtaan ak moom war koo toppatoo ngeen war a wéttalante loolaay farata ci yow yow loolu mooy sa naafila guddi mooy sa la guddi de ma wax la ko bul fi indi benn problème na nga góor góorgóorlu sa kemtilaayal kàttan boo ca noppee tam may la ko nag nga xamante ne soxlaatu la soxlaat ngeen di dend bu boobaa nag mën ngaa dem taxaw julli sa julli guddi naafi la sa naafi naafila ba sonnu tëdd bu dee góor it bul bàyyi sa ginnaaw sa njaboot waaw soxna si tëdd di la xaar nga dem lal sa sijaade yow fas yéene fanaan ca der ba xaw ma jën diine la waaye loolu bokkut ak li bi alayhi salaatu wasalaam jàngale waaw fanaan ca der ba bàyyi sa soxna bàyyi sa njaboot ginnaaw ne da ngay naafi la guddeeg da koy dundal yaa ngi bàyyi ay farata di sonn ci sunna ndax dañu laa soxla dañ laa soxla waxoon naa ko ca xadis ba eh, ca Abu Zarrin ak eh, Salman da ko waxoon ne ko yonent bi nee na sa yaram wi daa am àq na nga ko jox àqam sa njaboot dañoo am àq na nga leen jox seen àq sa borom daa am àq na nga ko jox àqam ku ne na nga ko jox àq ji nga xam ne moom la moom bu ko defee nag taxawaay ba door a nekk loo xam ne day am njariñ julli guddi ga door a doon loo xam ne day am njariñ euh, naafila wala safa ak witr wala witr ci boppam maa ngi ko doon wax li mu ay rakkaam gën gaa tuuti benn rakk lay doon benn rakk lay doon al witru rakka min aaxiri leyli mooy ràkk bi nga xam ne moom ngay julli mu mujj ci julli yi nga julli ci bis bi bi nga xëyee julli ñeent julli ñaar julli ñeent julliwaat ñeent julli ñett julli ñeent muy gée léegi nag nga naafi la dafa am julli benn rakk booy julli boo xam ne rakk bu tóol la loolu mooy witr salla rakatan waaxidan waaxidatan tu wutiru lahu maa xab maa xat sala yonent bi alayhi salaatu wasalaam julli benn rakka képp boo xam ne da koy tóolale julli yi nga xam ne moom la julli woon ci bis bi am ñoo xam ne dañuy wax ne witr ñetti rakka mooy boo ko déggee rek mooy euh, li may wax safa ak witr maa ngi koy wax boobaak léegi ndax ñu bari noonu lañ koy miine rakk bu njëkk bi nga jàng alfatiha bam jeex jàng sabbisma rabbikal aala allazi xalaqa fa sawwa wallazi qadara fa hada wallazi axraja al mar'a fa bam jeex rakkam ñaareel nga jàng fatiha jàng qul yaa ayuha alkaafiruun laa acbudu maa tacbuduun wala antum caabiduuna maa acbudu wala ana caabidun maa cabadtum wala antum caabiduuna maa acbudu wala ana caabidun maa lakum diinukum waliya diin muy ñaar rakk yu njëkk yi bu mujj bi nga jàng alfaatiha bam jeex jàng qul huwa allahu ahad bam jeex jàng xul auzu bi rabbil falaq ba mu jeex nga jàng xul auzu bi rabbin naasi ba mu jeex sëlmal mu nekk witr boo boole ñett yi moom la ñuy wax safa ak witr mbokk yi naafila lu am solo la dama la koo jaaral ci ak mbëmbëstal boo ko mënee bala ngaa julli tisbaar na nga julli gën ngaa tuuti ñaari rakka boo noppee nga julli tisbaar ñeenti rakka boo sëlmalee tisbaar gën ngaa tuuti nga naafila ñaari rakka boo ko manee bala ngaa julli tàkkusaan na nga naafile ñaari ràkka ginnaaw tàkkusaan li gën a wér gën a siiw mooy doo ci naafi la doo ci naafi la ginnaaw tàkkusaan bu timis jotee bu dee jàkke yi nga xam ne dañuy noddu toog ab diir door a julli buñ noddee ba nodd gi daanu bu la neexee mën ngaa julli ñaari rakka naafila door a julli timis bu dee ñi nga xam ne nodd gi day daanu rek ñu taxawal julli bu boobaat bokkal ci julli timis ka boo noppee man ngaa naafi la lu la sopp bala ngaa julli gee mën ngaa naafila lu la sopp boo jullee gee ba noppi mën ngaa naafila lu la sopp bu dee da ngay fas yéene yeewu ci guddi gi julli boo yeewoo ba julli ba noppi ba doyal nga def safaag witr bu dee fasoo ko yéene ndax yitte yeeg coono yi boo jullee gee ba noppi nga def safa ak witr door a tëdd ala kulli loolu mooy naafile yi nga xamante ne moom laa doon junju te mooy julli yi nga xam ne mooy julli coobarewu yi bu loolu jàllee nag dafa am waxtu yoo xam ne moom lañuy bañ ku ci naafi naafila waxtu yoo xam ne dañuy bañ ku ci julli julli la julli farata ba ñuñ ko ci wenn waxtu maanaam tey boo julli doon tisbaar ñëw ba agsi ngant li teggeeku fekk ñu julli tàkkusaan ba pare kenn terewu la ngir nga bañ a julli dangay dem julli ji waaye kenn terewu la dara am waxtu yoo xam ne nag dañuy bañ ku ci la dañ koy bañ bokk na ca loolu ginnaaw jullik suba ba jant bi fenk yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na laa salaata baxda baxda salaatil fajri xatta tatlu os sams maanaam buñ jullee suba nii ci kanam tuuti ba noppi ba jant bi di fenk ba yëkkatiku kenn du fi julliwaat kenn du fi julliwaat bu jant bi fenkee nag man ngaa julli sa julli naafi la mooy julli ak ya nga xam ne moo ci aju bu dee dangaa biddanti yow fekk waxtu julli wi weesu jullik suba gi moom terewuñ la ko waxtu yépp saa yoo yeewoo da ngay julli sa ñaari ay suba waaw góorlu ba di ko julli ci waxtu bi baax na nag ndax fi mu ne boo amoon rendez-vous da nga góorgóorlu ba régler bi yeewu yàlla xam na ko boo waroon tukki tukki njël danga góor góorlu ba régler sa montre bi yeewu kon góor góorlu itam ba régler ko noonu def ay yitte ba yeewu na julli jullik suba sa kemtalaayal kàttan ci waxtu wi nga xam ne moom lañ ko bëggee bu la ngànt dabee muy nelaw wala lum man di doon saayoo yoo yeewoo moom terewuñ la nga julli suba waaye nag tere nañ la nga naafila ci waxtu woowu bu fekkee julli woon nga suba ba noppi li ma bëgg a wax mooy naafila moo am waxtu yuñ tere waaye julli farata ki amee bor bi da koy julli saa yu ngant la ko daloon teggee ko bokk na ci waxtu yi ñu bañ ko ci naafila kon mooy ginnaaw julli suba ñu teg ci ne ginnaaw julli tàkkusaan ba ba jant bi di so la salaata baxdal fajri xataa tatlaw shams wala baax baxdal ashri xataa taxiba shams ginnaaw jullik fajar ba jant bi di fenk bañ nañ ko ci julli ginnaaw jullik tàkkusaan ba jant bi di so bañ nañ ko ci julli waaw ñaar yooyu ñu bàyyi ci xel ci waxtu yi nga xam ne dañuy tere ku ci naafila la bokk yal nañu yàlla nangul suñ julli farata yal nañu yàlla nangul suñuy naafila yal nañu yàlla defal njéggal ñoo ngi leen di lu baax baax di jéggalu mboolem ñi nga xam ne ñooy bàyyi xel almisbah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 kamala nihaaya li kamalika wa adada kamali seen mbokk Mbàkke Sylla ngeen àndaloon ci seen jotaay bii di almisbaax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu